lu jëm nag ci CEDEAO ak taxawaayam foofee ca réewum Gambie nee ñu euh, fii ak minuit bu fekkee ne minuit jot na ca waxtaan yi mujjul fenn daa ñu dugg foofee biir Gambie lañ fa war a def ci ab liggéey ñu def ko fa opération yee yooyee général François Ndiaye moo ko fas yéene jiite Pafara ñi ngi caay leeral image yi diir paa ñu ko baaxee. état major bu force bu CEDEAO nag ñoom taxaw ne dinañ song nag diwaanu Gambie bu dee yi antuwul. nous attendons que. état-major bi taxawal nañ ko ba pare nag bu dee négociation yi dara antuwu ci fii ak minuit dinañ attaqué Gambie ngir fexe démocratie dellu fa ni nga xam ne sunu dirigeant yi noonu lañ ko bëggee te noonu lañ ko waxee kon minuit pile rek la ñuy xaar. si d'ici là aucune solution politique n'est trouvée nous passons directement à l'action à partir de minuit 00 pour répondre aux injonctions. de nos chefs d'État. daanaka réew yi bokk ci CEDEAO yëpp ñoom dinañ bokk ci boobu la guerre ngir nag fexe ba delloo si démocratie foofu ca Gambie. composé notamment du Nigeria. du Sénégal. dëkk yëpp ñi nga xam ne nag bokk nañ ci CEDEAO bokk nañ ci bila opération Sénégal waa Burkina Faso Ghana Mali Libéria gana ak Togo ñoom ñëpp daal taxaw nañu ngir daal di def seen intervention ci Gambie. bi major de la force en attente la CEDEAO. état major bi nag Sénégal moo ci nekk Burkina Faso Niger ak Nigéria waaye bu combat yi commencé nag kii di général François Ndiaye bu Sénégal moom mooy diriger lii di opération yi.